marhaban bikum démb ci alxamis ji benn soxna xamut doom wasinut ci hôpitalu Sénégal yi allah réew mi yéen kaay moo ñu ko xamal ndax saas-femme ya fa ñoo geraw bañ na duñu rew lank na duñu rewle libération ne aji feebar yi démb sonn nañ Sénégal de ah fa ngay bëgg a dee te doo gis ko la faj l'observateur dëggal ko l'observateur na ko faa la ci jox misaal <laughs> yow seetal ca diwaanu Tëngéej benn soxna su doon mat su doon mat bëgg xam doom defuñ ko ko yaayi soxna se ne lii fa métti trop te ñaaw yéene kaay bi ne diwaanu Mbuur Tamba Louga Diourbel Kolda Tëngéej ña feebar ña nga woon ca diggante dund dee bés bi yéene kaay na ko Sénégal ci boppam ñoo nekk ci dansé dee ndax kër docteur seen geraw fa garaaw ndeysaan démb fa nga gis soxna yoo xam ne fa ñu ñëw bëgg a wasin sage-femme ya duñ leen sax faale comme nañ def rek asu soxna ba mu dee ñu ne déetawaay tey ci àjjuma ji pharmacie yi fa ñuy amal ñoom geraw xam na benn soxna fa yóbbu ci yoon ab médecin ginnaaw buñ ko opéré ca clinique Iba Mar Diop si du quotidien ne alxamis ju ñuul kukku ak métit moo am démb ci hôpital yi waa kër docteur fañoog bañ ne duñ liggéey sage-femme ya moom fañ doon jàppale seen mbokki sage-femme yañ tëj ca kaso ga ca diwaanu Louga moo tax ñu ne démb fañoo lànk na duñu rawle les si ko yéene kaay ne waaye sénégalais yi ci internet bi démb fañoo xas sage-femme yi fañuñ leen a yedd fañoo ñaawlu liñ def yow seetal sénégalais yooyu fa ñuy ne ndax sage-femme yi mérité na ñu leen di wooyee sage-femme yow tiim sa moromu jigéen mu war a wasin nga di ko seetaan naan faa nekk ci geraw sage-femme Sénégal yi ñi geraw démb fa ñoo ñoo bon te fañ leen a war a dàq baax àndi ñoo xam ne danañ xam yërmande le quotidien yéen a kaay réewum Sénégal moom fi mu toll bopp lay doxee yëf yi fa juutu jafe-jafe yi du xaaj du jeex ci fànn yu bari nag mbir yu garaaw a fi am l'observateur na ko ma fàttali leen lu garaaw li ñu wax ne moom la ñaari député ya def Sall ak Biaye ci trafiqué ay passeport diplomatique xam nga lan la procureur ba sàkk ñu tëj leen ñaari atu kaso yoo xam ne ñetti weer ya la tëdd ba tax yéen kaay bi ne ñi kay fañ leen a ndax le 19 mai ci la dogalu bi di daanu les si ne ñetti weeru kaso yu ñuy tëdd loolu fa tuuti torop ndax ñaari député yi ñu wax na lañ def fa garaaw ba jéggi dayoo leneen lu garaaw lu xam Sénégal mooy gasoil bu ñu def ci oto yi ak essence comme doom bu góor fi mu toll nii de fa manqué ci réew mi lii yéen a kaay moo ñu ko xamal wal fajiri yéen a kaay ne ñàkkum essence ak gasoil dund gi cher jafe-jafe yi askan yu gën a takkarnaase yéen a kaay bi ne man faay ragal askan wu fipp génn ci mbedd yi di yuuxu na wëyaay fa ñoo sonn fa ñoo damm fa ñoo dee fa ñoo tàyyi suñ ëpp na moo fi nar a xam boo moytuut le soleil yéen a kaay na leen attention def leen fi mu toll nii féete na boor presque état bi lijjanti na ko na ñaari bato yu def ay tonnes tonne tonne yoo xam ne yegg si nañ jëwriñ ji ñu dénk wàllu pétrole bi kon nee na na seen xel dal l'observateur dëggal ko ne kérosène ndox mi roppalaan yi jëfandikoo ngir naaw Sénégal am na ci loo xam ne fii ba njeextal weeru mai du manqué loolu baax na l'évidence yéen kaay moom di ñu xamal xeex bu métti jàppante yu dox jamono ji ci diggante Serigne Mboup maire bu Kaolack ak site internet bii ñuy wax Dakar Actu ah, waa Dakar Actu yi porte plainte sëriñ buubu yóbbu ko ca yoon ndax fa la na waxal lu yàq seen darak ba tax ñu yóbbu ko ci yoon ne sëriñ fa la singili l'évidence yéen kaay ne waaye seen plainte ba ñoom ba mu yegsi ci la sëriñ buub ëlbatiku dóor leen ñoom itamit plainte teral yéen kaay na ko citation directe la l'évidence na ko sëriñ buub kay yokk na sax ca yëf ya correspondant Dakar Actu ba nekk Kaolack citation directe la ko dóor wa nekk Kaolack ci politique bu nekk Kaolack Mbaye Ngom ne bi a tontu ba l'observateur moom toxal nañ leen turbine yéen na ko dig sax am na njiit lu bees laaj bi nag mooy lan la Macky Sall nar ba tax mu andi coppite ci biir police bu Sénégal la mu nar nag moom Macky Sall ci wote député yi mooy wàññi na li mu député yi ci proportionnel liste nationale bi ci liste proportionnel bi te loolu su ko defee mooy cohabitation bi ku gi naroon a yaakaar xam fay mujj takk suuf mu njaay siise ne loolu makki def faa ko ñaawlu le mandat yéen kaay ne makki tamit ma ngay di nangu maire opposition bi gaa yaa ngay transhumé rek lii yéen kaay na ko maire bu yoof mbaa du fekki makki ah makki dalal na ko ca pale ba te moom waa yeewi la l' évidence kaay ne makki moom gisuma ku ko mën a arrêté ci loolu mu nekk noonu fay continuer de l' na ko hée waaye fa war a def ndànk nag ndax duñu leen investir ak ñi kontaanu ci doxalinu Macky boo moytu ca yeewi lañ jëm de nay leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Ablaye Wade waajal na wote député yi ak waa PDS ya defaru nañ ba jekk waaye fa ñoo wan gannaaw wàllu Sénégal info yi ne moo ñu ko xamal te moom bërki démb moo fi doon woote ne na kujje gi dajaloo source a ne Wade kay fa bëgg taxawal coalition bu mag ku gi waaye waa yeewi askan wi nee na duñ ci bokk source a yi waa yeewi nee nañ ko kumbay bañ sàmbaay rasu xam nga fi mu toll nii waajal wote député yi ba tax Malick Gakou jox na leen daluwaayu partem ba a nekk seen carte générale te lu ko jiitu wote local yi Malick Gakou moo abaloon waa Yewwi fanweeri million ngir caution le quotidien yéene kaay di ñu xamal na lenn ci conseil ya nekk ca mairie bu Ndakaaru fa ñaawlu li Barthélemy Diaz jël capitaine Touré ak Guy Marius Sagna ca cabinet ba ci seen réunion bu njëkk lañ ko wax la mu leen wax na moom Barthélemy Diaz mooy xeex moom pare naa ci xeex naa ba jël maire bu Ndakaaru kon du ma tontu wax yu sew yooyu nangu nangu nañ ren Sadio moo war a jël ballon d'or bi man ma jël laas yéen a kaay fekk fa waa mafia kacc-kacc yéen kaay bi ne ñu xam doole leen ñi ci internet bi fañ leen di déglu mën nañoo dajale xaalis mën nañoo jàppale nit ay ponkal leen daal ci gàttal waaye nag hee yéen a bi nee na mafia kacc-kacc bari na fa ay looxóor bari na fa ay saagawante nday ay weerante sutura ak ay tëkku te loolu baaxut leneen lu baaxut te métti lool ci Sénégal lii yéen a kaay moo ñu ko xamal ah, yow seetal diwaanu ak Ranérou lu jege juróom benn téeméeri junne doomu aadama fi mu toll toll nii mënuñoo jox seen njaboot gi ndékki añ reer déedéet fa ñuy añ ñàkk reer ñàkk ndékki fa ñoo xiif waa ma ne diiwaanu Matam ak Ranérou yéen foofu rek ngeen dem waaye gis nga suñu waxante dëgg Sénégal ñi fi ñàkk bëri nañ def fa ñoo xiif sonn dëkk bi dëgër